kenn ragal gàcce ngalaama jàmbaar mooy des ca waar wa salaamaaleykum ah yéen ñi seetaan seen seen télévision Wagoot Vision ñu ngi nuyu ñëpp di leen bëgg di leen kontaan bu baax a baax ah. tey nekk seen encore une fois beneen numéro muy euh, à la découverte de moom aussi benn jeune boo xamante ne ah, day dóor waar nekk jàmbaar aussi euh, nee naa ko émission boo dëggee ñu la découverte de xamal ne pour ñëpp la ko bawul kenn képp rek kuy liggéey di dóor waar ngay jeune dana lay woo ak yow ñu toog émission ñu xam bu baax a baax kan mooy di war a booy kanay kan maam tey invité muy un jeune maa ngi koy bàyyi mu nuyoo alo ba salaamaaleykum waaleykum salaam Mahou mm-hmm. maa ngi lay remercier ci invitation bi di remercier euh, waa régie Wagadu Vision di leen wax kontaan naa trop ci initiative bi quoi di nuyu ñëpp di nuyu bépp téléspectateur bi may seetaan quoi franchement parler ayca encore une fois comme ni nga ko déggee sànq ah, nee naa ko muy sa émission la découverte de boo xamante ne c'est pour les jeunes ah, ñëpp rek képp rek kuy nekk ci yoon di di di dem def lu baax loo xamante ne euh, di tax sa moromu jeune gis la am ci yow espoir moo tax ñu woo ko tey donc Bass dañ lay bàyyi nga wax kan mooy euh, Bassirou. bon waaw loolu la ma ciy sawar di la tontu euh, Bassirou mooy un jeune bi nga xamante ne dafa nekk ci benn milieu di ci yëngu. Euh, muy wàllum secteur livraison ci waa ma ma ci bëgg yàgg nag di ci commencer am expérience mm-hmm. mu doon métier bi ma bi ma bi ma bëgg tamit quoi bi ma respecté tamit ba tax ki nga xam képp ki nga xam ne fekk na ma ci rek damay bëgg mu jox ma ci cër quoi en mm-hmm. fait euh, kooku mooy mooy mooy Bassirou Diédhiou donc Bass avant mooy dugg ci euh, pourquoi nga def nga nekk def livraison avant Bass nekk livre livreur lu mu nekkoon avant bon avant Bass di nekk livreur il était étudiant. étudiant waaw ah, étudiant laa woon nekkoon université. Hmm. fa laa nekkoon quoi balaa may doon livreur. léegi fa nga jógee euh, da nga quitté université uniquement dem livraison wala noo def ba dem livraison ba. bon loolu moom mun naa ne yàlla yàlla rek a xam quoi parce que li tax ma dugg ci secteur livre livraison bi sax xaw ma ko. Hmm. amaana mun naa ne tamit euh, li suñ borom nam la ma waroon do ma war a bokk sama dund quoi. Hmm. parce que nekkoon naa université sama emploi temps tamit euh, seerewul woon noonu demee daanaka euh, ku nekk xam na ne jàng université nu mu demee. voilà da ngay am semaine bi nga am si deux jours nga ciy jàng. Mhm. tous les trois jours qui restent doo si jàng. Mhm. ci kaw loolu du ma doon may fréquenté Yarax nga xam te ne falaa laa juddoo yaroo fa màggee fa. Mhm. mais biñ nekkee camp ba caserne Samba Diéry Diallo may may fréquenté Yarax du am benn euh, gain ma koy nuyu de passage sëñ Abdoulahad moom mi doon joxe ay moto léegi li may fréquenté foofu un jour mhm. mu toog booye mi génn mu jël benn moto ne ma am yóbbul ma diw ci noonu laa ko yóbboo commencé wu affaire yi di dem nànk-nànk mu may gën a intéressé ci laa dem daal ba ba commencé dugg ci secteur livraison quoi noonu daal laa déparé. la yow première fois bi nga njëkk a jël moto livré boobu loo loo loo sentir sama boobu. bon mun naa ne euh, départ bi je ne le prenais pas au sérieux parce que dama jàppoon ne genre nga yóbbu nit ki après wàccee ko rek peut-être xam nga nit ki booy soog a dugg ci dara da nga ciy dem ak euh, amour bi man amour dawalantu bi rek laa amoon quoi au mm-hmm. départ mais au fur et à mesure ngay dem am yi nekk sa ginnaaw mu leer na le yow mi yaa ngi âge yaa ngi dem am na li la war sa ginnaaw ci noonu laa commencé jël affaire yi au sérieux quoi di ci liggéey nànk nànk mu dem ba sérieux quoi. Mm-hmm. waaw waaw mën naa ne jamono ji moom man boog sama ci lépp li nga xamante ne moom laay gis ci loolu laa mun jàpp ba keroog yàlla di andi leneen mm-hmm. moo taxit maa ngi ciy def sama kenn laay kàttan maa ngi def lu ma mën suñ borom nag moo moo moo xam li ñëw suba mm-hmm. mais man daal maa ngi ci à cent pour cent ba keroog yàlla di andi leneen daal donc ñoo ko déggoon mu nekk lu am solo parce que aussi nee naa ko moom jàng na ba université déjà euh, am na diplôme toogul di xaar que ne naa bàyyi baam sama diplôme bi ma am ma am liggéey bi mais daa du dóor waar pour en attendant le temps que muy liggéey mën na am peut-être que yàlla def muy change situation ba mu mën a am liggéey bi nga xamante moom la bëgg donc Bass wax jeunes yi nga xamante ne fii Sénégal déjà jàng ba am diplôme toog di xaar soit ñu jàng ba am diplôme comptabilité wala secrétaire di xaar pour am liggéey boobu toog sa kër te liggéeyoo la wax si boo yooyu. bon jeunes que ni jàng taxut a am liggéey tu am na ñi nga xamante ñu defuñ dara et j'ai les plus grandes sociétés ci ci ci Sénégal mm-hmm. kon di leen ñaaxaar rek di gën a ñaax sama bopp xam ne tamit euh, wërsëg yàlla moo ko yor mm-hmm. képp fépp suñ borom bind sa wërsëg ne foofu la rek fa nga koy amee mm-hmm. kon di leen waxti ñu jug ca ba muy teel balaa moo trop tard te xam ne tamit diplôme kese kese kese yorul yorul yorul nit quoi franchement parce que am na ñi nga xamante ne c'est des ñi nga xamante ne am nañ seen këyit toog ci. Mhm, tey ñoo ngi fi exemple mun nañ jël ci jaaykatu gerte bi mën nañ jël exemple si taximaan bi kon bu ñuy lim du duñ fi jugee quoi. Mhm. ñu bëri na ñooy seen diplôme di def beneen métier bi nga xam ne ñoom jànguñu ko. kon man jëlee conseil ñu ñu jug te ba muy teel gën a ut liggéey daal maanaam am naa ne yombul. Mhm. mais tamit ci lépp luñ gis mu mu jege leen nañ ci jàppagum ba keroog yàlla di ñëw quoi n'empêche mën nañ déposer seen i toog di xaar. mais avant loolu nañ nañ am ci lu lu tuuti luñ jàpp ba pare quoi. loolu daal laa leen di conseiller. nekk na lu aussi euh, beneen na ngi nii aussi mooy jeunes yi nga xamante ne nee naa ko dañuy taamu liggéey. te nee nañu instant bi y' a pas loo am liggéeyal faj sa soxla doo ñaan doo na kenn même dafa nekk lu am solo. donc les jeunes nañ jug door waar xam ne kat euh, y' a pas liggéey rek moo li am solo liggéey rek moo nekk euh, li wóor. parce que loo wax ci ñàkkum liggéey bi dëkk bi instant bi dëkk bi tar na kenn amul liggéey gars yi ngi xaar ñi ñi ngi xeex fii ñii ngi def lu nekk pour pour rek parce que dëkk bi manque liggéey je pense. waaw loolu moom dañ ciy lancer appel euh, nguuru Sénégal rek mm. te ñoo xam ne tamit euh, war nañ gëstu jeunes yi nekk seen ginnaaw amaana yomb na yombul parce que nit ki tamit ay yaakaar nekk sa ginnaaw te sa situation familiale demeewul noonu nga toog liggéeyoo tamit mu am ñi nga xam ne dañ nekk sa ginnaaw yaakaar la kon toog waru la mm. kon di lancer appel nguur gi te tamit ñu ñu dugg ci sous quartier yi ak sous région yi di nemmeeku jeunes yi di leen laaj seen xalaat. parce que tamit ci se ci xalaatu jeunes yi ci ñoom lañ leen mën a jàppale sama xalaat bu gàtt. Mm-hmm. kon war nañ jàppale jeunes bu baax a baax a baax. vu que tamit euh, secteur livraison bi moo ngi wàññi euh, taux de comment dirais-je. Mm-hmm. taux de chomage bi ci lu bëri. di lancé appel tamit nguur gi nañ gën a jàppale jeunes yi rek di xool tamit ñoom lan lañ manqué. ñu jëm leen complété amaana mënuñu satisfaire ñëpp mm-hmm. mais ñu jéem a xool nañ leen def rek ba ba jàppale jeunes yi franchement parler pour affaire yi jéem a wàññeeku quoi. léegi instant bi gisoo ko ni léegi dëkk bi yëpp ñëpp nekk càq-càq mm-hmm. ñëpp a livré bi mm-hmm. loolu gisoo loolu loo gis loolu yow. ah euh, bëri nañ. te aussi dañoo bëri am ñoo xamante ne amuñu kayit quoi dañuy daw te amuñu kayit voilà. bon loolu tamit euh, toujours ci nguur gi la ñuy dellu rek parce que des fois nga bëgg muter sa moto c'est des problèmes. wala des fois tamit nga dugal kayit yoo xam ne ne kenn du xam kañ lay génn mais n'empêche tamit euh, ñun moom des fois dañuy tooñ mais tamit dañuy jéggalu rek des fois ñu tooñ duñu tooñ ñu tamit mais n'empêche toujours ci cadre livraison rek mooy maanaam damay lancer appel tamit ñi nga xam ne ñoo ci nekk di leen lancer euh, di leen waxte tamit ak képp bépp client bu mu munti doon nañ ko wan yar ak teggin même tali bi tamit des fois dañuy jànkonteel yenn yenn difficultés yi ci kaw tali bi ñu nag suñu papa yi takk deer yi ak suñuy nijaay sax la ñuy wax mhm. mais n'empêche ñun bu ñu tooñee xam ne ñun amuñu kayit war nañ mën négocier ak ñoom ñoom tamit ñu xam ne tamit euh, seen i doom ak seen i jarbaan ñoo nekk ci tali bi xëy na am na charge yi nga xamante ne war na leen seen kër ba tax ñu ñu dugg ci wàllum livraison bi comme ñoom tamit dama leen lancer appel ñu am ci tuuti compréhension comprendre ñun tamit ñu leen di comprendre bu ñu tooñee ñu xam ne ñun ñoo tooñ ñoom tamit ñu ñuy nangoo di ñu jéggal quoi mhm. parce que des fois seen doom sax mun na doon livreur nekk ci kaw tali bi xëy na mën na dem taseeg beneen mbokku policier am mu jéggal ko loolu daal laa am lu lu ma ciy sànni quoi. mais aussi ba tali bi xat na te gars yi ñu ngi dawal mooy taximan ngi si borom particulier ñu ngi fi aussi ak yéen borom moto yi quoi nga gis gars buy daw si tali bi di es ci tali bi quoi te yor livraison est du yoon ngeen daw si tali bi nànk dem livrer nànk dem ak jàmm ñëw ak jàmm aussi tamit. waaw loolu tamit am na parce que lu ñu naan bakkan jàmm la bëgg. te tamit lu ko mag yi di waxee naan daw nànk dal nànk euh, di leen conseiller tamit euh, bu ñu yoree alalu jàmbur nañ ko sàmm parce que tamit yow moom di dawal di es wala yow moom di dawal di foo ci moto bi obstacle boo ci mënti am rek da ngay lor sa bopp lor ki nga xam ne moo la yónni supposons nit jox la xaalis bu am fort somme bi nga xam ne da ko war a yóbbu mm-hmm. tey boo defee choc tamit mën nga nekk mën nga daanu foo xam ne doo conscient te leneen mën na la ci fekk uh-huh. te tamit boo paree amaana borom xaalis boobu noonu wala ki la jox produit am du am compré yenn compréhension yi voilà mën na la sax fayeeku du coup uh-huh. kon nag di ñu di di ñaax sama bopp di ñaax sama mbokk dawalkatu moto yi bu nekkee si tali bi nañ nañ def yar ak teggin parce que dawal tamit yar ci la bokk ak teggin uh-huh. yooyu war nañ ko def respecté tamit suñu mbokk taximaan yi ñoom ta di leen di leen di leen lancé wàllu appel tamit nañ ñuy muñal quoi parce que bi ñoo bokk parce que ku nekk da ngay sa kër na xol yi rafet rek ñu tàppee xol yi tali bi ñoo ko bokk ku ñuy jéggalante te ñu muñalante daal. en tout cas amoon na benn instant ba mu gaa yi kaas te seen client yëpp yéen a ko yóbbu. <laughs> loolu moom moom mun naa ne ñàkk gëma yàlla la quoi mun naa ne ñaax gëma di yàlla parce que tamit euh, taximaan yi bu ñu bu ñu jàpp ne ñu ñoo yor seen wërsëg. Mm-hmm. ñun tam bu ñu jàpp ne taximaan yi ñoom ñoo seen wërsëg man boog bu may génn sama kër damay ñaan yàlla lépp luy sama wërsëg yàlla naa ko lekk lépp li nga xam te ne waruma ko lekk yàlla bu mu yegg si. Mm-hmm. comme man su ma sañoon suñu mbokk taximaan yi tamit noonu lañ noonu la ñuy doxalee daal xam ne tamit lépp luy luy seen wërsëg ci journée bi wala lépp luy seen wërsëg li nga xam ne war nañ ko lekk incha allahu taala dinañ ko lekk quoi loolu laa laa gis. mais aussi Bass léegi euh, maanaam seen kii ko quoi comme balaa ngay am client. mu demee quoi balaa comme da ngay xëy nii nii avant ngay am nooy def ba am client ak nooy gérer sa livraison aussi. bon boo ci soog dugg nag dina métti. Mhm. dina métti lool mais tamit je me suis nit ki boo xamee li nga bëgg rek. doo sonn quoi parce que man bi may départ ay ay jën laa doon livré ay saaku jën mm-hmm. yooyu yëpp dama ko doon def mm-hmm. mais amaana mën naa ne ci ndimbal suñu borom ak sama tuuti yar ci laay parce que man d'après dama ne jàng naa pourquoi pas ma exploiter li nga xamante ne jàng naa ko mm-hmm. léegi vu ko client bi am na téléphone man su ma su ma ko woowee ba pare ba livreel ko produit am dama koy envoyer message ne ko yaay booy wala papa mbaa mbaa kontaan nga ci ni ma ni ma liggéey ak yow bu nekkee kontaan nga ci sama numéro moo ngi noonu mun naa la ko bàyyil pour beneen yoon boo amaatee livraison mhm. soo ma woowee après incha après nag noonu laa def di def nànk-nànk léegi euh, ma dem ba jéem a ubbi sama turu entreprise tuddee ko dee Taf Taf ubbi en en même temps tamit ma defarlu ay carte de visite pour képp ki nga xamante ne livreel naa la mhm. ma bàyyi ak sama carte noonu daal laay def am tamit ay ay clients yi nga xamante ne macha allah ay clientes fidel sax laay wax dama si surtout dama si cité turu madame di cité turu tamit madame Kane madame Lam ñoom wax dëgg neex yàlla bi ñu jàppee ba léegi bàyyiwul ñoom sax ñooy dem ba di la boole yeneen nit yoo xam ne ñoom xamoo leen wax dëgg yàlla noonu daal la la laay commencé gérer samay samay samay clientèle quoi. mais léegi aussi mi ngi dépendre ci yar bi quoi. ci yar bi parce que bu fekkoon naa nekkoon koo xamante ne déjà amoo yar. du la gis bale boole keneen. waaw aussi waaw loolu am na solo aussi. Aïcha nee na ko nekk na seen mission ah, à la découverte de tey mu nekk un jeune di euh, le jeune Bassirou Diédhiou nee naa ko li mooy àdduna ah, li mooy àdduna dañuy jàppalante quoi kenn amul kenn ku nekk rek dañ lay dañ lay déy nga mën a am xam foo jaar xam li ngay def quoi àdduna nii la y a pas euh, liggéey rek moo nekk lu am solo liggéey rek moo wóor yaa xam looy def mais nanga def nekk ci bu jub le trois chemin bu la kenn tax jàdd koñ mukk euh, jeune yi nga xamante ne ba léegi bas. nee nañu bëgg dugg ci ci métier bi déjà te seen më peut-être ñu yu am xaw ma ñoo koy moom xamuñu ko dañuy tànkal dëkk bi ak seen i daw yu bari te fi ñu jëm xamuñu ko dëkk ci ay choc loo loo wax ci booy yooyu. bon booy yooyu euh, man pour man alal bi nga xamante ne moom moo ko alal jàmm ki nga xam ne dafa jënd benn moto bi nga xam ne peut-être somme deux cent wala trois cent. Mm-hmm. trois cent mille jox la ko. parce que am na benn instant policiers yi xaw ma nguur gi nan nañuy tere cag-cag yi quoi genre yooyu moo tax parce que amuñu papier yi pare dëkk si dëkk bi di sonal gars ak seen ndaw yu bari. nga xam nga des fois yenn cag-cag yi ñoo yàq yenn cag-cag yi man loolu laa mun wax. Mhm. wala yenn soi-disant cag-cag parce que tamit nit ki mën na yor motoom te du doon livreur. wala nit ki mën na jël moto bi juste di mbubboo turu livreur te en plus jubluwu ci loolu. Mhm. bon leen lañ war a xam mooy que ni. secteur livraison bi ak nit ki boobu lu may wax chaque jour rek ma nit ki lépp loo mënti yëngu man jàppal ne fa la sa la nga nekk parce que ki nga xamante ne moomul moto bi wala ki kam moom sax man pour man ki jënd alalam jox la yow yaa war a gën a mën sàmm loolu ko sa alal yow kon di leen conseiller encore une fa képp ki xam dafa yëkkati alalam jox la nga war ko mën sàmm parce que tamit loolu li nga xam ne bu doxee nga dox bu taxawee nga taxaw mm-hmm. kon jar naa jar naa sàmm bu baax a baax a baax kon loolu daal laa laa am lu ma ci sànni daal ma. léegi Bass nu muy dundee ak ay client ak ay client am quoi. bo maa ngi ciy maa ngi ciy sant d'abord mm-hmm. des fois tamit moo am client yi nga xamante ne dañ lay tooñ mm-hmm. mais man nekk nit koo xamante ne. Euh, ak lépp noo mënti ñëwee ak man rek man l'essentiel li ma warloo ak yow mooy ma jox la sa produit yow nga fay ma sama xaalis ñu dem mm-hmm. nga dem man ma dem damay euh, fàttaliku ci moment Covid bi parce que amoon naa fi benn client bi nga xam ne macha allah dama doon dem këram su ma demee mu dalal ma toog mu jox ma ndox bu sedd ma naan waxtaanal ma mu soog ma jox sama xaalis ma dem. Mm-hmm. mais période Covid bi dama seetlu ne dama fa njëkk a dem mu mu àtte ñaaxal ma malgré fay na ma sama xaalis mais si buntu këram la may taxawloo. deuxième deuxième fois ma fa demee. Uh-huh. ma remarqué dégg ko mu naan bon bi. kala livreur waaw mu ne boo boo ñëwee na taxaw si bunt bi nga jox ko gel. mu mu mu raxas loxo yi quoi te xam ne ne ki nga xam ne kooku au départ avant que Covid bi. Ah, daanoon ngeen seeqi jàmm mais tamit ma compre am compréhension jàpp ne xëy na lii. Mhm. mbas mi bi nga xam ne ne moom la ñëpp di daw. moo tax quoi moo tax bi bi ma ñëwee. je femme bi euh, bi bu muy génn ma ne ko non soxna si man am naa gel sama moto raxas naa sama loxo ba ah, pare balaa maa ñëw léegi ci la jëlee xaalis bi jox ma te di leen wax ne tamit na amul solo parce que ñun tamit seeni doom lañ seen i seen i frère lañ mhm. je nga ni nga jàppee sa doom sa biir kër noonu nga war a jàppee livre te xam ne doomu jàmbur la ci kër la jóge te boo bu génnee ci kër lay delluwaat bon di leen wax ne tamit ñu gën a respecté livreur yi livreur tamit gën leen respecté mm-hmm. man ba ah pour le moment amaguma benn problème ak euh, livre ak euh, sama benn client quoi franchement mm-hmm. dëgg neex yàlla amaguma benn benn benn problème mais carrément que yaa ngi gis sa bopp si liggéey bi quoi waaw maa ngi ciy sant yàlla nag mm-hmm. maa ngi ciy sant yàlla bu baax parce que maa ngi ciy faj sama soxla maa ngi ciy maa ciy dimbali ñi ma ñi ma war a dimbali man ci dimbali sama waajur bu baax a baax a baax te di gën a sàkku ñaanti moom tamit franchement. am na solo donc euh, ni la ko suñu temps ngi jeex ah dana lay bàyyi parce que nga wax sa ngeex moo nooy tàggatoo ko boo xanaa di rafetluwaat rek initiative di bi di rafetluwaat di kontaan ci invitation bi xam ne tamit lii yombul. Mm-hmm. yombul mooy euh, bëri na livreur yi nekk ci euh, ci dëkk bi xëy na amaan peut-être sama chance fii la nekk quoi ñu ñu ñu invité ma ci ma doon ma bokk ci ñi ñuy invité boog laay wax. di rafetluwaat euh, action bu baax a baax te tamit di leen ñaanal yéen tamit mm-hmm. euh, régie bi dem ba dooni ay rajo doon ba ay dem dooni ba ay tele ñu leen di dégg fu ne xam nga li nga xamante ne yéen a ngi ciy yëngu yàlla na barkeel di ñaan yàlla tamit lépp li nga xamante ne manqué am moo xam mu tuuti wala mu bëri yàlla na barke tamit bu barkee tamit yàlla naa ko jariñoo mm-hmm. te tamit loolu laay ñaanal bépp mboolem jullit quoi franchement parler di di di sant suma waajur bu jigéen bu baax a baax di di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi ba si kanam ba mu fekkee njëriñ bi di ñaanal tamit euh, képp ki nga xamante ne yaa ngi may jàppale moo xam ci wàllum finance la moo xam ci conseil yi nga may jox parce que lu ñu naan moo xam ñaan tamit bi bi ngi may sànni lu ñu naan ñaan du tuut moo xam bu bu xale bi la wala bu mag bi kenn xamul bu ciy dal di sàkku tamit di gën a sàkku ñaan te xam ne demaguma fenn di leen wax seen doom a ngi nii soo leen ko soo di di xaar nag euh, ngeen jàppale ko bu baax a baax parce que pour man damay soog a dugg sama bund àdduna pour man tamit sama liggéey bi xëy na peut-être fii la sama teraanga nekk te di ci sant yàlla bu baax baax quoi di ñaan tamit ñu gën ma ñaanal affaire yi gën a jëm kanam incha allah. bon di remercier waale balaa ma pare euh, sama tailleur bu ñaawul bi Naya Kara Naya Kara shop mm, euh, madame tàmba di ko ñaanal aussi euh, sëyam bi yàlla may ko si njaboot bu barke franchement parler kontaan naa trop guddi guddeel na ma bëccëgal na ma. franchement kontaan naa si moom trop lépp li ma sol kaw ba suuf moo ma koy ñawal di ko ñaanal li mu bëgg ci xolam yàlla na ko suñu borom defaral franchement kontaan naa ci moom trop trop trop trop trop na yaakaara amal jàmm lu bëri yàlla na la yàlla fay sa xol. waaw sama numéro mooy 77 656 45 71 77 656 45 71 boo bëggee tamit euh, am naa numéro Kirène 77 044 76 06 77. 044 76 06 loolu mooy numéro ñaari numéro BD Taf Taf yi yërë ngeen jëf. ayca ci gars nee naa ko aussi ça a été un plaisir mu nekkoon cette émission. mu am comme euh, invité euh, mu un jeune di Bassirou Diédhiou nga ne kii mu tudd. BD Taf Taf. Ah, maanaam Bassirou Diédhiou Taf Taf. yéen ko dégg nu mu nekkoon un jeune boo xam ne mu ngi def li nga xamante ne mooy livraison di livreur donc euh, ñu wax gars yi que ne y' a pas liggéey rek moo am solo liggéey rek moo wóor bu kenn kenn may ma na ñëpp jug dóor waar. loolu rek am solo y' a pas de sot métier ku nekk ci li nga nekk di yëngu ci lu baax jàppal bañ a bàyyi bul xaar kenn defar ma wala may ma ayca ça a été vraiment di leen kontaan di leen bëggee merci beaucoup. bu kenn ragal gàcce nga la am jàmbaar muy des ca waar wa